nga bëgg di 20 000 baax na pour waxaale bi nekk fii di wax. moi 10 000 OPEX 5 000. c'est. tout c'est 15 000. 15. waaw ku ne 10 000 la yéen ñaar. muy 20 000 muy 20 000. waaw man daal yor naa sama néeg boo bëggee moo sama beneen xam ñu gérer. complet 10 000 la 5 pour 5 000. am suñu yoo xamante ne nag gaa situation bi ñu si dugal nga am na suñu yoo xamante ne ñoom seen jëm bopp maanaam loolu da leen neex quoi ñuy dund. ñoo xam ne comme soo leen laajee sax dañ leen neex ay.

sen dal ak ubon, wu bon jublu ci bar yi boîte de nuit ñeneen ñi ñom taxaw ci talibi di koste mel na ni nak ñi ñaaw na lol ci ay ñi gis ci digg guddi gi ab di tamambaalu ci mbedd yi ñu ci bari si ñom nak du dara mo leen taxa a jóg jaay seen bop lol oh, lay dafa bari man bamay gëna nek boy mu nga daan dégg doom ko won quoi mais buñ démé ba dëkk ñom xam cela comprendre yu nak ren ñuy naka dafa am quoi vraiment. mais temps yi moom dëkk bi moom loolu dafay gën a bëri bilaay. waaw bu dul dara man nekk naa ñoom damay jooboo ak ñoom quoi genre comme ay affaire livraison rek ay cruise ngeen jaay cruise mais dama leen di fréquenter xam naa leen bu baax. des fois nii soo yoree oto da ngay ñëw taxaw si tali bi yow da nga leen di romb sax après da nga leen di woo ñoom ñoom sax ñoo ñoo lay posé question naan la waa da nga bëgg gérer gérer affaire yi nangam nangam la xam nga dañuy dem hôtel. affaire yooyu noonu di la wax. kii nag di ab chauffeur di dellu si waat yan côté ak ban waxtu la faral di gis nii nga xam ne ñooy jaay seen bopp. voilà am na Dakar am na Almadies ak Ouest Foire xam nga Nord Foire Ouest Foire moom moom moo ëpp ak Wakaam tamit Wakaam ay deux heures du matin quoi mais des fois comme su fekkee week yi la vendredi samedi dimanche dañuy teel a monté dañuy xam ne clients yi dañuy bëri des fois dañuy teel a monté. bilaay man moom man lu ma dal moom dafa bëri am benn jour sax yow naa lolo client <laughs> yor woom paas quoi. loolu nag waraloon ñu doxantu ba fi nga di almadi ngir rek joytu ni fi mbir yi laloo fi nag mi ngi ni bërsëg ku nekk si ñoom sol sa lu ñi ànd ak ay góor ñeneen ñi ñoom taxaw di client ñu jublu nak ci ni fi ndaxte si mur nyenin nyinyong di kar oto yi pour wax ak ñoom bi ñu jubloo nag bi cila lañu nit daal di jege si ça va mais yow lo ñuy yeen noni ki dafa ñu mess saaf sax di gerau gerau. ma nga gis fe sang ma nga gis fe sang mu yeen di xol yow xana do xol do nak kusinek ci nekk ci di naka lay amalee liggéeyam. li ñuy laaj xaw na takk lool ndaxte tolloon nag juróom ñaari junni ngir benn guddi. léegi da di fay benn benn cinq mille après que yéen ñëpp yéen loolu moo gën a yomb comme ça wala waa bu ngeen di fayee benn cinq mille comme non ah, chambre bi nag ay meuble la caabi yaay gis nga ko ay ay kii la ay chambre meuble léegi nag su fekkee d'accord nga loolu comme ñu teg nekk <laughs> ba pare xool ñaaraa fi nekk ba pare waaw ñoom nag ñu fexe ba daal di leen di daw waaye laataa ñuy doxaat tuuti ci la ñu seen beneen soxna moom nag mu daal ñuy jege si. ñu da ngeen di fay hôtel wala. xamuñu ba xam dañuy fay hôtel wala dañuy dem fële si néeg. hôtel ngeen bëgg wala ñu wala si néeg ngeen bëgg a dem kër maanaam. waaw waaw voilà genre ak fanaan. da ngeen yor fanaan ñaata la. non non fanaan defuñu ko de man fanaan wax dëgg yàlla. Hmm. Ah, waaw man daal yor naa sama néeg boo bëggee moo sama beneen xarit ñu seere. Hmm. ñu dem si néeg mais si néegi ba ay ñaar kuu la ñu mën a am. ñaata. ba ay ñaata kuu la ñu mën a am. waxaale bu jiboo la rek benn ngeen bëgg wala ñaar. ñu ñaar ngeen yéen ñaar. ça dépend ñaari ndaw sële ñu romb fële moom mile mu ngi laaj fukki junni ak ñaar. fii nii ah xam dañuy nangu ku ne vingt rek. mooy laas de ah vingt mille da nga fay junni la di. vingt mille yow yow nga ma doon wax ay waxul ñaata. ay dix mille. waaw ngeen fay néeg mais mais waxuleen ngeen fay néeg waaw pour ñu fay néeg moom jeex na nag mën nañ fay néeg moom amul problème jeex na ku ne 15000 daal soo leen ko amee loolu la daal boo defee ku ne 15000 ma woo léegi kenn mu def ñu dem 15000 waaw sa néeg daa sori dé fii yoof la rek ba si yàgg mu tàmbali bàyyi loxoom ndànk-ndànk waaw ku ne 10000 la yéen ñaar muy 20000 waaw léegi moom ñaaram yi ñaar yi mën nga ma may 25000 25000 waaw non bëri na 20000 baax Nyari kungo bëgg di 20000 baax na pour video. bi nek fii di wax bu ñëwee ba ci néeg bi nag foofa toj foofu yëngu quoi comme njëri itam ñu def lépp ba mu mujj daw baaxul ah kon kan taxaw ñu bari nañ fi mag yi sax léegi bëreetuñ léegi xale yu ndaw yi ñoom ñoo si jël. gaa sax bu dee ñu ndaw ñi ñoo fi ëpp mel na ni itam ni ñàkk yi ñu ngi fiy bëgg teg tànk. étranger yi dañ fi gën a bëri quoi ñag yi congolais yi yooyu noonu man damay def yàngoo quoi mais des fois damay yëpp ay clients yoo xam ne da lay leer ne kii mooy loolu quoi bilaay. ñu bëri duñu sib ndax ñoom guddi bi dañuy maquillage sol ay perruque doo leen xàmmee quoi. yooyu la kàddu lii di ko gën a firndeel.

Qui Moi. En bas Où Ici. Chez toi Non. Is it over? ici Easy? Yeah. niki nono ñu jóge fa daal di daw dem ñibi. pour oustaz nak li rek waral na mbugal yu bari yi ñu ko ci bés yu mujj yi saa boo xamante jaay sa bop ak li nga xamanteni moy lekk riba ah tasaaroo na ci benn dëkk nee na nañu xaar mbëggalu yàlla ku nekk xam na senegal yi ñu fiy dégg te daaw fi am loolu wax dëgg lu tumuraanke loon la ci ci ay jamono waaye gis nañ léegi yaatu na lool luñ mës a dégg rek ñoo ngi koy tàmbalee dégg fii senegal ci ay xew-xew ay musiba yoo xamante ne nii moo ngi fi am. loolu nag di lu mat bàyyi xel. li nag yemul rekk fii ci taxawaalu mbedd mi ndaxte pour ki nga xamni xam na ñooñu lee di jaay seen bop bu baax ñu ci bëri ci ñoom ñoo ngi gérer seen business ci biir appartement yi. moom am na ci yenn tête yo xamantene ne ñoom du ñu am yenn piol yi quoi du am néeg comme genre tey ñuy ñëw comme nga loué leen seen néeg journée bi ay journée dix mille francs dix heures nga fay nekk ba ay minuit et quelques te gars yi leen ñuy jox loolu noonu dañuy am dañuy am ay job am liggéey quoi mais bu ñu yeewoo dañu dem dóor duñu bàyyi kenn seen nekk yow ñu fay bàyyi xam ñu ne fa bu benn heure bi ñu wàccee ñëw dallu après nga jox leen sama kaas ñoom nga liggéey ñaax liggéey seen ten taw la koy jox parce que bu jox la kele bi bu wàccee seen ten taw lay dee loolu weer bi trois cent mille francs lay ñu teg nag lépp ci yoon ba waral képp ku leen soxla dina dem ci seen page wala compte yi nga xam ni ubbi nañ ko ci seen biir site. parfois daa am ñoo xam ne ñu joxul ñoom. comme dañuy leen di monteel seen puce quinze ticket la leen jox ñu joobal leen loolu quoi leen noteel leen dóoral benn puce boo xam ne si job euh, après dañ koy publier publier benn page Facebook wala benn compte publier ko yenn gars yi di ko gis leen leen si woo quoi après ñoom ñu leer fan la ñu nekk. ba si noonu nag ñu daal di lijjanti fenn fu ñu leen mën a jotee. loolu nag daal di ñuy puus ñu fexe ba dugg ci boobu lay jël fa yenn ci ay numéro daal di leen di woo maa ngi kam terminus PZ terminus ah ok maa ngi fan si taal ba moo dafa trompal nga Birios woo ah ok c'est Birios bi noonu uh-huh compra il jingle sempre sempre Berapa sih aneh ini semua? Tangan ke sana. Hmm. Bayo orang yang Wah. Terus kerja apa Wah. Hmm. li di firndeel ni jigéen ñi di jaay seen bopp bari nañ fi lool waaye pour ñi nga xam ne xam nañ leen bu baax amaleeg ñoom ay waxtaan ku si nekk si ñoom am na lu la ci dugal am xamante ne nag situation moo ñu si dugal ñoo xamante ne ñoom seen jëm bopp maanaam loolu da leen neex ko ñu koy dund damay tëj mos xam ni bëri sax. ñoo xam ne comme soo leen laajee sax dañ dañ lay ay non problème de loyer problème de famille affaire yooyu moo tax ñoom ñuy mun di di def loolu quoi pour mun a am xaalis affaire yooyu ñeneen soo leen laajee dañuy wax ay passion la naa la ñoom waa instant yi góor yi ñoom ñoo yaax seen xol ba. mënatuñ def dara quoi léegi nag c'est obligé que ñu def loolu tax mënatuñu wóolu benn góor. loolu nag waraloon ñu dox bépp jéego fexe ba gisante ak kenn ci ñoom di jaay boppam ngir rekk mu wax ñu lan moo ko dugal ci loolu lee mu metti woon loolu nag ndaxte ñu ci bëri duñu ànd ak benn yar ak teggin gannaaw bañ leen xamalee ni ay taskatu xibaar lañ te bëggoon am ay laaj yu ñuy leerloo. Lolo nak taxul batay nyu ñu bayyi ben yoon suñu loxo gannaaw bañu gëna gëstu nak gëstoo nag mujj nañu am kenn ñu dégganteeg mom nak waxaaleeg mom ba mu nangu ni mun nañ ko jël mu wax ñu lool moko duggal dugal ci mbir moomule waaye ñu dégganteeg mom nak ba mu tektal ñu fim ñu wara jël see ñi koy wo mënatuñ ko jot loolu nak waral ñu wacc daal di dox lu tolok ñetti waxtu ci bir gox bi ngir rek mun ko tek bët

li nak waralon ñu dal loolu ñi bi waye bu ñu démé ba tok muju nañ ko wowat gi rek dalalal xelam waye itam ta nak mom ndax rek mu wax ñu lan moko duggal dugal ci lolu le ci ay kaddom nak mu ñi xamal ni li moy xëyam situation moomu si dugal sunu waa kër mënuñu maa fayal école ba pare di ma dundal moo tax ma obligé bàyyi sama jàng dem na liggéey bi laa bëgg moom laay def te bu ma amoon lu ma gënoon tamit dama koy bàyyi dem xool leneen. ñaata at moom nag firndeel nañu ni jël na bépp matuwaay ba mën a amal liggéeyam tey daw bépp jafe-jafe. liggéey moom moog loon ñoo ànd ndax par yenn saa yi nga dajee ñu baax par yenn saa yi nga dajee ñu bon mais yow yaay am sa fulla rek xam ne bu la situation dugalee nga am ci sa fulla rek liggéey si ngi siy liggéey pare nga dem sa yoon liggéey bi moom liñ ci gis nit bu nekk mais boo nekkee si yoon rek yor sa pièce nekk en règle affaire yooyu noonu say problème du si bari ndax ku la si fekk dalay respecté famille carte yooyu nag doon na loo xamante ni mënul ñàkk ci seenub liggéey suñu sukkandikoo ci ñiilee carte bi maanaam tey bu amee carte da am dat yoo xamante ne da nga war a ñëw def visite dañuy dem def visite quoi bu defee visite léegi bu fekkee da nga am feebar dañu nangu sa carte traité la quoi ne la temps deux jours mun la fekkee ngay job tant que amoo carte lay jàpp te mën nga si ndaw ndaw ndaw mais fekkee amoo la jàppee da ngay parce que gars yi dañ leen di laaj carte quoi sans tomber benn bi almadi la woon gendarme yi ñoom ñoo ñëw gis leen si kaw tali bi noonu fekk justement ay seere côté boobu léegi ñu ñëw laaj leen ay papier affaire yooyu xam naa ne gars yi amuñu quoi après ñu yëpp leen mais bi fee après damaa damaa waat ci tali bi après ma gisaa leen ñu taxaw quoi léegi mu ne sûrement ñii xam naa dañ dañ leen a baal wala daa lu ñu wane loo xamante ne leer na moo tax gendarme yi bàyyi leen. suñu sukkandikoo ci suñu ustaas bi nag bokk na ci bàkkaar yu gën a rëy ba tax na képp ku si daan dox war nga ko maytu du jëmm ji nga xamante ne dafa xas ba am soxna ñu naan ku sangewu la wal moxsanaat jëmm yooyee muy jigéen muy góor bu ñu seqee ak yeneen jëmm yu xar yu leen xaraam ci loo xamante ne du ci yoonu lislaam loolu lañ tuddee njaalo su boobaa lislaam lañ cay teg mooy maanaam dañ leen di rajmu dañ leen di sànni ay doj ba ñu faatu di nga gis jëmm joo xamante ni soxna soo xamante ni bu la romboon doo ko sax ñemee xool waaye la muy dundalee njabootam moo ngi koy amee ci diggante ñaari tànkam la muy dundalee njabootam moo ngi koy amee ci diggante ñaari tànkam loolu ci ci màndargay mujjug jamono la bokk yonente bi sallallahu alayhi waxoon na ko yii yëpp te kay def loolu dafay jàpp li muy def loolu rek moo fi sës moo fi sës te kon te fekk na loolu sës am na leneen loo xamante ne nii moo ngi ci gannaaw loolu ndax bu doon jaay ku doon jaay caaf dong rek danga mën a dund alal ja muy am ca la muy jaay te muy la xaraam riba doon li muy def jëmmi bakkaar muy def itam loolu xaraam na te faaxisha bu mag a mag la kon moom yamul ci benn bakkaar ñaari bakkaar lay boole ñetteelu bakkaar bi sax mu des na ko boole mooy la muy jël mu di ko dund dundalee ay njabootam alal jooje mu koy suuxatee yeneen jëmm yoo xam ne la ñuy jëfandikoo lépp deret la lañuy jëfandikoo lépp musiba la ci ñoom ndax kullu laxmin nabata min xaraamin fa naaru awlaa bi yonente bi moo ne bépp ndawal loo xamante ni lu ko suuxat ci sa jëmm ji ba mu màgg mooy jëmm ji jël na alal ju araam jël alal ju xaraam dundalee ko njabootam njabootam di ci màgg di gën a màgg di gën a am yaram yaramu duuf nee na fan naaru bi kon jëmm yooyee daanaka safara moo leen yey dañuy gis ne jëmm yu mel noonu ñuy suuxatee lu mel noonu du ñu wér benn ñaar mooy maanaam nekk ci yoonu njub daf leen jafe lool ndax ci njub ak njub ñoo ngi koy amee ci lu ci lu dagan waaye lépp lu daganul mu ne ci cee am ak njub mu des nag soxna yi nga xamante ni ñoom ñooy def bu bu ñu nelawale nelawale seen ay waajur ñu génn dem ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëbb na nee na bépp jëm muy jigéen joo xamante ni génn na ci kaw lu dul ndigalu waajuram kookee fu mu romb lu mu romb moo ngi koy rëbb ba ba muy dellu si waat jigéen joo xam ne bu dee soxna la génn na tàgguwul borom këram na ko wóor ni ba ba muy dem ba ba muy dellu si lépp lu mu romb mu am mu am ru wala lu amul ruu ñoo ngi naan laanatullahi alayha yàlla na ko yàlla alak yàlla na sànku yàlla na ko musiba dal lolo nak di lu mat a te xel ndaxte dukujigen bile du ko jigen ki rek mu ko yellool ku gor ki itam amna na ci wal loolu nak taxna ba ñom ñi ñile ñi ngi ñaax képp kuy gor nga xolaat bu baax sa taxaway ko ñu la wax parce que la plupart ñoom ñoo yàq jigéen am ñom dañuy sey ba tass ñew sen galay mënu ñu leen gérer dañuy am gérer lay dañuy kenn taxalee ben ci biir day ak ben bërda mu la commencé la ben somb am soo ko téye tëddee la nga xëy ñëwaat mu commencé la ben benn somb tëddee la nga ñëwaat mu lat ay gainam da ngaa yomb ñu tamit yëkkati teg bu jig ngay la xadu def par ñoo yomb la lo plat mo am ñëpp yëg na ngay liggéey li xam nga su sutura dem ci carte ñu commencé yombal sa bop tambal na next quoi après mu ñu dem ba au fur et à mesure da ngay dem bay naan di tok da ngay da ngay am lu métti quoi lu la gënoon ñu si nekk kenn gën gënul kenn ñu si nekk ñëpp boobu. lii di jaay sa bopp ak génn di mooy yàlla ñaar yëpp dafa boole li nga xamante ne mooy zina ak riba mu ne kon nañu xaar mbugalu yàlla yàlla na ci yàlla musal ñëpp koo xamante ne da ko doon def na gaaw ko mën na gaaw tuub jéggalu borom bi subhaanahu wa ci bàkkaar boobee nga xamante ni ci la nekkoon te ñaan borom bi subhanahu wa taala musal ko ndax yalla itam ku muccu ku nek mo la musal ki ci nek itam yow mi nga xamanteni man nga ko dimbalé no ko mëna dimbalé dimbalé ndax yeen saa nga rombu soxna so xamanteni la tax muy def lamuy def dafa gisul ku ko wax du ci wajur du ci mak du ci kenn ku ko mëna dimbalé ci wax ak mom di nak war nañ ko wara mëna maytu bu baax si suñu réew suñu sukkandiko si suñu ustaas ndax ndaxte nit waru mëna daw situation ba dugg ci lo xamanteni ni àddoowul ak suñu diine ak suñu aada loolu nag war na tax képp kuy góor waaye itam jigéen nga bàyyi xel bu baax ci suñu diine di lislaam